asalaamaaleykum suma mbokki olof yi nuyu naa leen ku nekk sa tur ak sa santa man la Asa Hakouri Sila judo Gambia màggee Gambia may waa Gaarawul Kantoora waaye tey nag yàlla dafa dogal eh, Paris laa dikka waaye nag festival international Soninkarah bi moo ma indi ci yoon bii nii ñu ngi invite ñëpp nag ci suñ festival bi fuñ ko defee si stadium bi Bakaw invite nañ fa ku nekka góor ak jigéen mag ndaw euh, festival bi dañoo wone suñ aada suñ laada euh, bëgg nañ nag ngeen ñëw xool saraxule yi ñun lan mooy suñ aada ñun naka lañ dee solo ba pare nag dinañ si waxtaan lu bëree baree baree bëri parce que yëfi diina mu si biir diina bi mooy foos parce que ñëpp xam nañ ne saraxule yi ñun diina bi lañ giital mooy suñ première waaw invite nañ fa ñëpp ngeen ñëw ñoo seet suñ culture bi euh, ñu naka lañ dee dundee lu bëree baree baree baree baree nekk si biir duma leen mën a expliquer nal yëpp waaye soo leen ñëwee di ngeen gis parce que yéen a ngi dëkkaa saraxule fii waaye xëj na xamu leen suñ culture xamu leen suñ laada waaye soo leen fa accès incha allahu rabbi ñu fekkee ko si jaama di ngeen gis suñ laada ak ñu naka lañ dee dundee ñaan naa leen yéen ñëpp nag ngeen ñëw uyu si ñu si stadium bi ba kaw mu ngi commencé on the 20 between on the 24th mbaadi kolu assalamu aleykum mbe moo be konton na ito nyuma ani konto nyuma alnal badi malem asa hakuru sila wuluta gambia kuluta gambia gara wolinkoole monti kantora bari bi mbe steering eh, france le ala y'a kɛ n diaspora musow la précédemment n b'a falal yen eh, ngal invite festival international soninkara min be gambia jang ka commencé on the 20 th on the 24 th abekela kɛla bakawle stadium moto laftala ali ye nanan ali ye nan na laadolu jibe sarakulolu ka balu ɲamin na pare ɲalu Eh, nkana na maralolu kɛ ɲaamin nasuwolu kɔnɔ nka faliyan fana ko eh, silamiya dino silo a bɛ festivalo ɲin kɔnɔ a tele ye sembo soto je baake baake baake baake bayirin gambiya mu silami banko le ti an dun sonu sarakulolu ntolu man fɛn ni silamiyan tɛn wala mu fɔsti fɔlɔn n b'al daani la albe nanang stadium moto on the 20 ha mbalbe kumandala aliye nanan je aliyena na ladol jibe aliyena jibe alsiñol anal badiŋol min ke tasarakulol tinna baluñaɓe ñamin ngal be invite je uh, ni wo bota je mba falaliyen ko momorondi niɓe nanan moɓe sarakule pare kede <laughs> fula jola mandinka surtout fulol wolum fula yate jede moɓe ɓe kela sara kolole ta allugo ala baraka bake assalamu aleykum mangi nuyu wa sahel network tv eh, muy suma caameñ bacili nuyu naa la gërëm naa la yaa tim bi yëpp ngeen ñoo fekka suma suma biir kër ñoo interview ma loolu daal def ma neex torop torop torop torop kontaan naa si bugga naa nag doomi Gambien yi ñëpp xam ne Sahel Network TV télé bu baax la télé boo xam ne la see koo seetaan di nga kontaan parce que télé bi dafa set soo duggee network xam nga fale eh, YouTube soo defee Sahel Network TV di nga ko gis programme boo bugg gis Gambia soo fa duggee di nga ko gis ba pare festival international bi ñoom ñoo ko cover ñoom ñoo ko génnee ku ko bugg a gis daal demal foofu noonu nga seetaan ko. FISO 2020 FISO 2020.